Xaasimu Ba di waa ji nga xam ne moo faat kii di ki Gueye di ndaw suñu faat ca bërëbu liggéeyukaayam foofu lay ca Pikinori 10 moom mi leen nag gannaaw ay recherche yu police bu Sénégal amal ña ngay xamal ne rek nekkul benn yoon bi rek la daal di truande xaalisu jàmbur ndax Xaasimu Ba nekkoon na ca benn agence bu ñuy wax Cofina fii ci Point E doon fa liggéey ci benn cash point service di filialu agence Cofina boobu lay ca atum 2019 moom mi di Xaasimu Ba simulé woon na fa sax benn agression ndax rek lu tolloog 6 millions de francs CFA la daal di luubal ne rek dañ ko daal di agressé te loolay dara amu ci ñi nga xam ne ñooy ay dëkkandoowam foofu lay ca Pikine nag ñoom ña ngay seede ni rek ab ndaw bu calme la ku am respect ci nit ñi te doon ko am yar te am kersa loolay sax moo waral ba kii nekkoon njaatigéem foofu lay ca ko fi na woon ko lool ba sax tëye ko ca liggéeyukaayam boobu lay gannaaw xaalis bu takku ba mu luubaloon foofu lay terewul rek patron am daal di koy jël def ko ab kees yey foofu lay ci agence bu ko fi na ca postam bu bees boobu lay Hassimou Ba amul lenn rek lu muy def lu dul di sàcc ak a truand xaalisu client yi noonee sax contrôleur daal di seetlu ni xaalis ba ma ngay manqué te loolu loolu mosu faa am kii di Xaasimu Ba nag moom dafa mel ni rek nekkul nit kuy doyal ndax ci atum 2021 la moom mi daal di sàccaat lu tollook ñaari million ci suñuy koppar ngir waajal lii di mariage ci sàcc googee la waa agence bu Cofina daal di jël ndogalu jëlee ko foofule ndax moom mi sax ma ngi leen doon yàkkal ay clientèle gannaaw dàqam googu rek fa la daal di jógee dem célébrer benn mariage royal boo xam ne c'est digne de son nom après célébration mariage am boobu lay ne rek la mu fa dépensé lépp salaire ko koo may te sax ña ngay xam ne ni kii di Xaasim Ba moom dafa yàgg incarné ay vues dalee rek la doolee ca ndoxaanam ak benn ndaw suñuy woowee Mimi Simon nga xam ne moo doonoon jabaram ji mu waroon a ngénte ni ki démb ci dimanche bi ndax rek wanoon na ko ni moom dafa yor tàmmal ko ay goût de te loolu rek la buggoon woyee ak kii di Mimi Simon ci sëyam bi moom nag li ñu jàpp ni moom moo waral mu def jëf ju ñaaw ji mooy rek dafa waroon a ngénte moom ni ki demb te yorul sax la mu jëndee woon xaar moom mii di xaasim nag gannaaw enquête ba ñu amaloon rek ma ngay xam ne ni kii di jabaram moo ko doon teg pression ak i waxi ngénte taaw loolee waral mu daal di wàññi xaalis bu mu waroon a jox kii di Kiné Gaye tolloog 5 millions francs daal di koy jox 2 ba pare dellu di ko àbb 200 pour jënd xaar ca la Kiné daal bañ rek xamal ko ni xaalis bi du xaalisam te loolee moom mi xam na ci dara ca xaasim daal ba police ba daal di amal fekk benn paaka bi nga xam ne moom la rayee kii di ki Kiné Gaye ay yére yu takk deret ak lu tolloog 1 million 900 mille ci sunuy koppar ba ko polis laajee li des ci koppar yooyu lay moom Xaasim ma ngay xam leen ni rek li des ci million millions 500 yi jox na ko jabaram pour mu ngéntee ko kii di seenu doom bu njëkk